aleykum wa rahmatullah mbokki Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ki ñu jàkkaar loolu mooy Pape ngeen xam ko nekk écurie di rakku Lac Rose ñu gis ko ci làmb mu ciy def ay performance yu am solo waaye nag ñu gis ne affaire yi léegi dafa wàcc waaye defe naa combat bu mujj seetaan ngeen ko digganteem ak xale bi nga xam mooy Jackson bu Géejawaay la tey nag ñu jàkkaarloog moom boobu ba tey yàlla def na amuñu occasion gisante ak moom tey nag wër nañ ko ba gis ko Pape Ndoye maa ngi mhm. baax Uh-huh. waaw di sant adduna yëpp. di ñëpp daal maa ngi leen di ziar. mais Pape Ndoye man fi may ñëw ak yow ci làmb ji parce que dafa mel ni Pape Ndoye léegi affaire am dafa xaw a wàcc li simple bi gisoon nañ la commencé ci percé dem ba benn moment affaire yi neexatul te it avec bi moom ci laay mujjee mais li simple bi nga doon dugg si ba yàgg nga xaw a wàcc lan la da ngaa mënta bëree wala da nga dul entraîné wala lu xew wala mbëri dañ mbëri simple dañ laa dañ laa gën a taxaw. non lutte simple bi simple bi maa ngi ci woon maa ngi ci woon di def samay jéego bu baax mais après tamit xam nga après xëy na dafa am lu tax ñëwatuma ndax après feebaroon naa. Hmm. waaw feebaroon naa di ci soox di dem après ma xam ne mënul ne ma bàyyi concentré wu ci sama bopp parce que sama bopp moo ma gënal xaalis. Hmm. waaw ma concentré wu ci sama bopp ba yëgaat sama bopp. instant bi nii waaw instant bi nii fu ñu ko wootee mën naa mën naa ne bisimilah. ma ñëw léegi ci lutte avec frappe bi sa combat bi nga mujj bëri ci laay dem tout droit mooy sa diggante ak Jackson. waaw Jackson bi nga koy jël xam nga ko. non man bi ma koy jël xawma ko bi ma jël xaw ko mais mbër di nga toll état boo xamante ne nii doo gis lu dul bëgg a bëri waaw di nga année balance di nga toog doo gis daal lu dul bëgg a bëri moo lay tax a bëri ama ñu bëre yàlla may ko ndam ci sama kaw dama ko si wax ni ko loolu moom jàll na li des sama kanam laay concentré wu di ko xool di xool beneen yoon bu may jaar. fu ma jëm te incha allahu rabbi dama fay yegg incha allah. Mhm. waaw ndax sama combat boobu noonu ma bëre. xëy na dëgër bopp ak am yu ma tegoo lu ma ci dal xëy na loolu noonu si la bokk te loolu dootuma dalati si àdduna. bu ma si boo déggee ma laaj la ndax xam nga ko parce que euh. dañu gisoon nga ñemee ko trop te Jackson nekk benn xale boo xam ne li ñu gis si moom mooy xale bu dangereux mbër mu làqu man doy waar man man ragaluma kenn man ba nii may wax ak yow faalewu ma kenn hmm. mbër ma man faalewu ma kenn faalewu ma benn mbër barki yorante bi mbër bu taxaw sama kanam man maa la mën yàlla nag mooy maye ndam yàlla mooy joxe mais man mbër bu taxaw sama kanam ba ba muy jeex maa mën. ba ba muy jeex man maa mën. mais yaa mën boobu du ànd ak stratégie ak tamit xam nooy aborder sa. parce que loolu noonu man leer na ma leeral yàlla ne moo nekk mais xëy na am na lu tax. ku taxaw rek yaa mën. man ku taxaw sama kanam rek gëm naa ne man maa la mën parce que li mbër di def yëpp dama koy def xëy na xanaa dernier combat laa rek laa am ay tolof yu ma dal yoo xamante ne nii xam feebar naa xam nga am yu bari ay gàllankoor yu ma si dal mais loolu noonu waxoon naa ko sax jarul am na détails yoo xamante ne jarul ñu ci ñëw chaque jour bu yàggee day ñàkk xorom. waxoon naa ko xam nga. Mhm. kon man li des sama kanam daal laay xool. moom ngay xool daal waaw sama kanam laay xool. mais lamb damay damay yaakaar ne adversaire bu tol noonu ak kooku ni mu demee pour man boo ko jëlee. te bu fekkee ci li nga wax ne nga wéroo kon wala nangam est-ce kon ku wérul kay bu mu leer na wéroo est-ce que war nga parce que yàgg naa ko def wéruma di dem ci ay mbapat di bëre mbapat yu bari ànd naag samay booy dem di ko bëre te wéruma ba booy dañ may wax naan ma yow lan la lan moo la dal man leen dara. mais sama seetaan la ci te te wéru nga ñëw bëri si. sama mag parce que moom après wax naa ko ko ba mu wax ma lim may wax ma teggi ndigal. ah waaw jour boobu laay doog a tegganteeg moom dara. yàgg yàgg Lac waaw jour boobu laay doog a tegganteeg moom ay kàddu. kon xanaa kon écrit moom ñoom jotu maanaam daaw leen gis sax kon parce que comme wéroo kon. Ah. est-ce que ñoom joxal nañ digal tam nga dem bëri ah man daal jël naa samay charge bopp li ma ci dal dal na ma nangu naa ko accepté naa ko am benn problème. Mhm. waaw yàlla moom. mais bi nga sumee ko Jackson sumee ko ngeen jàkkaarloo nga gis ko. ba tey da nga gëm ni kii yaa ko ma. billaay wallaay taalaay. Bombardier sax bu taxawee sama kanam man damay gëm ni. mais bi ngeen xeexee ba nga génn. ba nga mel ni ku arrière génn. waaw c'est parce que instant boobu instant boobu noonu sama douleur moo yënguwaat. waaw sama fi noonu metti ci man moo yënguwaatoon rek. man pour man dóora la génne ah. man non foofu noonu sama douleur moo yënguwaat rek man jël naa man jël naa coup bu ne ci làmb man man faalewu ma coup man kaay kaay xeex moom ma gënal lépp mais xëy na instant bii daal Babacar li ma la mën a wax mooy daal incha allahu rabbi di dinañ gis. Hmm. waaw di dinañ gis. après dinañ gis. waaw kon combat ba daal daf laa jàngal lu bëri. waaw jàngal na ma lu bëri. garaawul loolu amul problème. après bi nga ciy jógee dama amaatoon ne écu ko ni say loxo doon métteeg say nangam sangam loolu c'est vrai. sa vrai. say loxo ban saaru méttit. non méttit bu garaaw mais loolu noonu dalewu ma ci combat bi nag chaque jour dama koy leeral. ok loolu dalewu ma ci sama combat bii ma jógee. billaahi wallaahi yàlla mën na tim yàgg na. Hmm. loolu yàgg na. yàgg na ak yow yàgg na ak man mais man maa ci doon soox rek di dem di jël samay en charge nga boo nekkee ndaw rek man faalewu mooy bëri. mais est-ce que mbër tamit war na di ma sport de làmb ma nga sport la de haut niveau nga bëgg dem au niveau bëgg nekk mbër bu mag est-ce que boo wéradee laajut nga dem faju ji comme ni ah, mais tamit boo nekku taxaw maaman ku taxaw maaman ba yow bu say loxoy mais teg sa naagam nga ne da ngay bëri est-ce que loolu maanaam bu keroogee gars yi duñ ne est kii ni mu daanu moo tax muy lay. waa parce que xam nga lan moo tax parce que man mosuma toog ci média wala ma toog fenn man di wax sama feebar parce que tamit kenn yow tey am na lu metti wala kii di filmer am na lu koy metti te doo leen gis ñu toog fenn di ko wax man du lu ma metti rek damay toog ci ay média di ko wax parce que média du ko faj man xëy na su ma amee lu may metti hôpital laay dem xam nga wala ma dissocier samay waa kër wala ma xool nu may def ba loolu noonu jéem a dañ mais du damay dem di toog ci ay média di wax man damay toog ci mbedd mi di dégg rumeur di dégg di dégg di dégg wala nit ñi di ma gis may dem di faju xam ba ñu gis ma di ma laaj lan moo la dal ma expliquer sama yenn nit loolooy tax mu dem xëy na ba sax yenn nit di jot ci mais xëy na bu nekkoon sama sagoog sama sago rek loolu ma ko def wallaahi azim billaahi wallaahi taalaay laa la waatal ni la avant may am combat la ma yooyu noonu yëpp sonal ma doxuñ ko muñ ko dem bëre ji te waruma ko woon a def waruma ko woon a def. mais sama gëm-gëm xam nga ak xëy na xelu xale. ak li ma jàpp daal rek li ma la wax ku taxaw sama kanam maa la mën. léegi yaram bi moom fu mu toll ci côté santé bi. non fi mu maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi normal maa ngi entraîné commencé hmm. waat naa samay entraînement normal. Hmm. waaw commencé waat naa samay entraînement hmm. bi commencé waat naa samay entraînement normal. addicteur bu métti laa amee woon. addicteur waaw amee woon naa addicteur bu métti. sa xel tey si ku ne. man sama xel instant bi nii nii nii nii nii. du ma wax sama xel si kenn la nekk damay nekk samay entrainement promoteurs yi ñi ngi gis xam nañ samay adversaire supporters yi amateurs yi xam nañ samay adversaire ñoom mën nañ tëgg sama combat mais man instant bii du ma taxaw di laaj benn mbër. ñu ngi lay proposé combat. waaw ñu ngi may proposé ay komba comme ñan. ah ñu ngi may proposé ay de. comme may wax ay ñu ngi wax ay combat de. Hmm. waaw xam nga mbëri moom koo tudd turam rek mu ni pare na ma wala waajal na ma te amaana demeewul noonu. làmb la rek ay xale lañ dañuy wut xam nga dañuy wut lu ñu yóbbul waajur yi. Euh, bu ma ñëwee ci Jackson façon bi mu la daane doo mu daanu boobu est-ce que tey loolu mu ngi soxal nga dañ ko di xaar ëllëg ngeen ak ngeen am revanche yaa ngi xaar sa revanche ak moom. man déggoo li ma la wax man entrainement sax ku ma fa daan na xaar revanche. Hmm. man man man l'homme de défi laa waaw man képp ku ma daan si àdduna. wallahi azim sama xol ñëw fayoo ngi si. kon daal Jackson na la xaar. mën mën naa laa romb ci lamb sax wëlbatiku ñëw bëreeg yow pour fayu. ndax loolu ndax loolu. waaw ndax man noonu laa mel. ok te am na lu tax ma wax ko nag. te nañ leen dem àdduna yi suñu kanam dinañ gis lépp. Euh, kon daal suma ma la déggee daal da nga bëgg a redoubler d'effort pour en cas ëllëg yéen ñaar bis bu euh, ramas ba jotee nga taxaw ne ko kaay jël jël ñu jël ko. àdduna suñu kanam laa ma suñu kanam nañ dem pam Ndoye en forme nice maa sant yàlla bu baax instant bi waaw instant nii maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi samay entraînement. barki alxuraan. ana ki nga xam ne moom mooy Lagros. Lagros mi ngi fi mi ngi si ay entrainement bu baax ñooy ànd entraînement chaque jour. Lagros mu ngi entraîné. mi ngi entraîné bu baax. Lagros euh, santeem léegi fu mu toll moom. ah sant. wàllu sant sant mi ngi entraîné mi ngi contact mi ngi def lépp. ok billaay walaay. mu ngi contact ak def lépp mi ngi contact mi ngi def lépp. kon daal fi mu nekk nii yaram bi yëpp. waaw yaram bi daal lépp jàmm fi mu ne nii fi mu ne nii daal di ko ñaanal mu am combat rek yàlla may ko ci ndam. yow koo gis ak moom combat. Lac Rose ki ba ñi ma gis moom bari na Lac Rose Malick Niang combat bu neex la. damay taxaw ci Malick Niang lu tax Malick Niang li ngeen parce que dégg nañ Lac Rose wax ci am na ñu ciy wax. parce que damaa xam ni Lac bi ma xam Lac Rose damaa xam ni Malick Niang xeex kat la. waaw. Lac ah. Rose damaa xam ni da koy corriger force. Lac Rose naa corriger Malick Niang barke alxuraan da koy corriger. bul waat loolu diis na di. man da man xam man du lim nekk sama mag moo tax. Lac Rose Malick Niang combat la Lac Rose ama neex combat la Lac Rose Moussa Ndoye la ñetti combat yi noonu yoo xamante ne man bu si am bëgg naa. mais Malick Niang mi nga xam ne dóor na fi ay mbër waxuma la benn de ay mbër ñu daan Lac Rose di ñëw di ko corriger. Malick Niang bu ko Lac jàppee da koy corriger da koy duma daan ko. làmb laa lay wax nag waxuma la ay lim nekk sama mag wala dara da koy duma daan ko maa ko wax te bés bu taxawoon tamit bu jàllee damay waxaat du ma sëgg billaay wallaay Lagos moo mën Malick Niang fuuf. da koo dàq xeex da ko ëpp doole wala. moo ko dàq xeex moo ko dàq bëre moo ko gën a nekk xale moo ko ëpp doole. barki Serigne Touba Lac Rose bi ma gis instant bii nii faalewul kenn yàlla na yàlla na ko yàlla musal si cat laa koy ñaanal ndax instant bii nii mi ngi sant yàlla bu baax. cat kay yàlla na ci yàlla musal bépp doomu aadama yàlla na ci yàlla musal bépp doomu aadama mais yàlla na ko ci yàlla musal bu baax moom moom sama mag jooju nga xam ni namul dara daal ci man. dégg naa yéen ñaar amoon ngeen ay quelques problèmes bi sa combat passé waaw amoon nañu ay quelques problèmes bi combat parce que da laa mere woon ndax da nga bëre dégg naa loolu de man dama xam damay gëstu waaw loolu mën nga koo confirmer waaw parce que combat bi dafa ne ma woon comme instant bii nii da xaw a jagade bul bëre bàyyil combat bi ma ne ko billaahi damay bëre boo yi maa leen mën barki alxuraan ma ne ko ñii benn tànk ci biir géew sax dama leen di daan weranteeg moom mu wax ma ne ko barki yonente bi maa la ñaan loolu waaw li may tàggoo bariwul di wax samay supporters ak àdduna nañ ma xaar incha allah dinañ gis Pape Ndoye vrai mu ñëw di sant àdduna yëpp di sant waa Arc-en-Ciel Cellule Patrice borom Lac Rose maa ngi koy sant bu baax a baax di sant ñëpp di sant sama grand nga xamante ne dañ may jàppale ku ci mel ni Mbodj da siy jàpp bu baax a baax Cheikh ndiggal suñu maman Ndeye Sali xayta Seck séeri Woz sama yaay ak sama papa ñëpp. ñëpp daal ñi nga xamante ni nii dañ dañ may jàppale rek nday faatu séeréer Lac sama jigéen boobu nga xam ne bañalu ma dara maa ngi sant ñëpp daal wiis ibu 88 xam nga affaire yi mënoo ñàkk bañ a sant parce que boo amee bés wala même bu dul bés tamit ñoom ñëpp dañuy dugal seen loxo di la jàppale kon ñooñu noonu munoo ñàkk leen bañ leen di leen remercier bugguñu ko sax mais man mënuma loolu moo tax maa ngi leen di remercier bu baax a di ñaanal sama yaay ak sama papa yàlla leen fi bi ma am si ñoom samay mag am ko si ñoom yàlla na ko yàlla mottali ñu ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. dégg naa taxu ngeen léegi géejawaay. waaw. da ngeen fa am kër. waaw waaw. <laughs> waaw am nañu kër waaw. ku jënd yaa jënd kër gi wala fan Lagros wala Ameth Ndoye wala ku jënd kër. Lagros moo ko jënd. Lagros man bëgg naa jënd kër de. Ah. loolu la may ñaaw loolu la may yabe temps yi quoi ci kër gi. mu ne la war a jënd kër gi sama kër la. looloo ma métti nii. <laughs> daa bëgg nga jënd kër goo xam ne foog ma góorgóorlu ci déedéet ba pare takk jabar boole nekk ci kër gi di wax sax mu ne ma eh waxal nànk kër gi sama kër la ba pare te sa jabar newu fi te aw ma jabar sa célibataire la kii fi mu may fi mu may koñe dafa laa xoj quoi lii <laughs> ma xoj ci bëri <laughs> mais wax waa ñaata leeg Grand Dakar parce ku ne xam ne ne dëkk tamit waaw waa ñaata yaa ngi géej waay léegi waa ñaari tari Grand Dakar moom ñoon duñu ay supporter wala dara suñuy mbokk lañ waaw di leen ñaanal rek di leen wax ñuy gën a waajal rek gën a jàpp waaw xam nga ni Pape Ndoye ak moom Pape Ndoye àdduna la àdduna la xam nga ne du ay lii wala lii waa Grand Dakar ñaari tali moom foofu suñu gox la loolu noonu mënul deñ titre boobu noonu mënatul deñ ci àdduna buñ deewee sax loolu day continuer di dem yàlla na yeex kon ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla na jàmm yàgg di wax waa Grand Dakar waa ñaari tali yëpp ñu ngi leen di remercier di leen gërëm di leen sant ak sant ñëpp daal dëkkandoo yu bees yi waa Gàddaay dëkkandoo yu bees yi nekk fii. <laughs> wax dëgg yàlla nit ñu baax lañ ñoom tamit. Ah. waaw bañ fi dëkk see yàggul mais vraiment ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax yàlla na jàmm yàgg Mbodj mooy borom Gàddaay mbóoj Mbodj ah <laughs> asek naa waaw. ok <laughs> kontaan ci yow jéegi sama doom day Seex Ndigal